الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ñuy nuyu mbokk yi fi toog yëpp di ziyaara di ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala daje bii ñu daje yàlla na bokk ci daje yi yàlla di nangu bu ko nangoo lañu ci bëgg tey ak ëllëg yàlla nañ ko ci defal gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi jotal nuyoo yooyu ma xamal mbooloo mi ni leen wala ñi ñuy dégg te tooguñu fii ni kàddu gi ma amee di ko wax mbooloo mi tooga ko moom gannaaw bu yàlla ak yonent bi seen liggéeyu maam lañu bëgg a dundal muy li nga xam ni yitteeloon na ko ci jamonoom ba mu bokk ci yamu doon ñaan ba mu demee mag yàlla may ko ñu war a daje nag tey ji ma wax ci seen tur ñooy ma yónni gaa waaye ma ziyaare leen ndax manit it yaakaar gi ñëpp am ci seen maam moom laa am ci seen maam wan waxuma waxu mbokk waxu taalibe ak yaakaar moom laa am di nuyu képp koo xam ni kii yaa ngi tuddoo ni jullit nga ñu leen di nuyu bàyyiwuñu kenn moo xam yaa ngi ci biir réew mi walla nekkuloo ci biir réew mi moo xam ñu ngi lay teg bët moo xam teguñu la bët foofu nag ñu may ma tuuti rek ma wax fi Seydi Hajji bagage am du walisam mbootaayam mooy bagage te limu mu boot bare na euh, bañ ci sore trop waaye ma wax ci loolu rek wan leen ni njabootu Seydi Hadji daal njaboot guy joxante loxo ngi fi jàkkaarloo waaye njaboot guy rombante ngi fi te duñu gisante loolu moom lu wóor la xam ni kon kër Seydi Hadji Malick këru yàlla la ku yàlla soxla ci yow dara dana la fa dëkkal di ndokkeel jullit yépp ci at mu bees mii ñu tàbbi ndokkeel ci Sénégal yépp ndokkeel ci jaamu yàlla yépp ndax boo ne jullit yëpp am nga ñëw génne te ñi nga génne la nekk yàlla la soob la soob yàlla seen digganteeg ñoom nag sa yoon nekku ci looy wax yàlla rek boole leen ci ndax waxfir mi wali man naa baynina nasabun min jihati tiini aw fi diini Seydi Hajji Maalik bàyyi wul kenn te ñaar mbokk yooyu rek fi am ah loolu kon ñi nga xam ni dañu nangul yàlla alhamdulillah ñi gàntu itam ñu bàyyi leen ak seen borom te bañ ci dugg suñu yoon nekku ci waaye lu ñuy ñaan yàlla rek ñu boole leen ci naan njabootam ñi jiitu ci ndokkeel boobu ci at mu bees mi nag mooy suñu kilifa yi ñu yàlla booleel mu di kilifa diine yi ñoo fi nekk ci suñu kanam bu ñu dugg si woon léegi ñun ñëpp daañu wàcc toog ci suuf di massawu coono ci yi nga xam ni yàlla la soog mu wàcce ko fi ñii di ko tuddee mbas ñii tudde feebar ñii di ko tuddee jàngoro def naa ni balaa daal mënoon nañ ci yem ni balaa la su defee kon ñi mu dal ñu ngi ñaan yàlla yàlla na leen ci yàlla génne ñi mu dalul yàlla na leen ci yàlla musal ñi ci génn àddina yàlla na leen yàlla yërëm te jëlee ko fi musal ñu ji yàlla jëflanteeg ñun ci yërmandeem ak mbaaxam ci daraja yonent bi te bañ a seet ñun ni ñu mel ndax ñun jekku nañ ñu ba noppi massawu coono yi ci ñi nga xam ni yàlla wàcce na fi ndox ndox bu wàccee ñu jàmbat bu wàccul ñu jàmbat benn jaamu yàlla nit moo bindoo noonu ndox mi nag yàlla na gën a wàcc gën a bare jagal lépp te bañ a yàq dara kenn bañ ci yàqu kenn bañ ci yàqule yàlla na ko ci yàlla defal mu nekk ndoxum barke ndoxum jàmm euh, di beral nag ni képp koo xam ne yaa ngi askanoo ci Seydi Hadji Malick képp kuy askanoo ci moom ci mbokk ak nu mbokk mën tudde ñu ngi yëkkati kàddu di ko ci loo xam ni yittee kër Seydi El Hadji muy jumaa jële ci Tiwaawan taxaw fa taxawaay bu yàgg taxawaay bu yàgg nag parce que Seydi El tabax na lu ëpp benn jumaa lu ne def na kon jama jumaa jooju su taxawee euh, kenn euh, àggalewu ko ñu fekkee ni yàlla la soob li wolof di wax lu jot yomb yàlla ñu ko yàlla yombalal ba ñun ñëpp ñu fekke ko julli ko yàlla defal muy liggéey bu rëy nag boo xam ni tuutiwul ji ñun waaye rëyul ci yàlla ñuy sant nag képp koo xam ni toog nga wéet xalaat jumaa ji jàng benn faatiha ni yàlla na ko yàlla àggale te ñu fekke ko ñu ngi ñu ngi sant ba ca kooku ndax wolof dafay wax ni doom bi sax ci sot la bokk te li fatiha mën def ci liggéey yàlla dërëm mënu ko def ci liggéeyu yàlla ñuy yëkkati nag ziyaara ak nuyoo jëme ko ci njabootu Cheikh na Ahmad Tijaani eh, Cheikh Abdul Muttalib ñu ko ko yëgal ko ko yëgal moom war na yëg war na ci bokk ndax Abdul Muttalib ci kër gi la xaleele ba màgg ba bàyyam génn àddina kon kenn waru ko ci jiitu te mooy sëtu Cheikh nag yëkkati nag ziyaara ak nuyoo jëme ko ci Thierno Bachir Tall mu di xalifa Alhaji Omar Fouti ca Louga Cerno Madani Taal bu Cerno Muntaga Taal Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa Sëriñ Tuuba Cheikh Abdoulaye Thiaw mi fi nekk tey di xalifa Laayeen yal na ko yàlla saafara Cheikh Ahmed Tidiane Ba ca Madina Gunaas moom it ñu koy nuyu di leen liggéey bi foog li ñu ciy dégg fii ci kër Seydi Hadji Malick nuyu Khalifa Ahmed Tidiane Niass ca Léona Niassène yëgal ko ko yëgal ko Khalifa Alhaji Maye Niass ci Medina Baye Niass yëgal ko suñu dëkkandoo bi ñu dëkke muy Cheikh Bekkay Kunte ca euh, Njaasaan di ko yëgalit Cheikh Ousmane Ngom xalifa maam Alaaji Rawaan kooku daanaka mooy borom ndax maamam la ak Seydi Hadji di ko yëgal it di ko jotal di nuyoo ci Serigne Mansour Sall bu Serigne Abbas Sall di nuyu ak di ziar ak di jotal ci Ceernom Muniru Njëgën xalifa bu maam Ahmed Njëgën ca di ko yëgal ak gannaaw nuyoo ak ziar xalifa Abdourahim Seck ca Thiénaba di ko yëgali sëñ Mansour Cissé ca Pire bu suñu bàyyi Amat Cissé Pire di ko yëgal sëriñ Maodo Maam Ndiaye Maam Ndiaye Cissé ca jaamal képp kuy kilifa daal bu ñu tudd sa turit ñu ngi la ko yëgal di la wax ni danañ ko commencé altine incha allah ci la ñuy démarrer jublu nag ci liggéey bi xamal ni ñi nga xam ni dinañu gis jataay yi bu ñu ko gisee ñu xam ni ñii kat kenn raxu leen ñëpp njabootu kër Seydi Hadj ñëpp njabootu Seydi Hadj Malick lañ njaboote mooy seen sëriñ mooy seen maam ci kër ga la ñu dëkkit nag ay doomam rek fi nekk ah ki nga xam ni moo jiitu ci njaboot gi moo di alxaaji Malick si Maodo mii toog Sëriñ Mansour si Jamil mi ngi nii toog tey jii mooy xalifa Serigne Babacar mooy xalifa Serigne Moustapha mooy xalifa Seydi Hadj Malick man nag maafi fi mag waaye terewul nag ma wàcce sama bopp incha allah ci seen barke maam muy lu dëggu ci man may yaakaar yàlla ni yàlla bu ma am rek njureel ci Seydi Hadji Malick yàlla naa am ci moom ak taalibe bokk ci moom te bañ ci nekk ndax nekk ci baax na waaye bokk ceeku gën yàlla nañu yàlla defal bokk kooku di gërëm ñëpp nag eh, di sant xale yi yëpp teew nañ ñëpp teew nañ ñëpp teew nañ tudd kii bàyyi kii waaye ñëpp teew nañ jataay bii nag yàlla bu mu fi yem nekk suñu mujj jataay yàlla nañ ci doxee defaru ba faaw defaru ci yàlla defaru ci àddina defaru ci suñu diggante yàlla nañ ko def lii moo ñu jig lii mooy suñu taal lii mooy suñu force lii mooy suñu sag yàlla nañ ko yàlla saxalal ma beesalaat ni ndaw lu doon wax ci turu ay kilifaam wax ko ci seen tur wax koog àddina àddina xam ni kat yéene dajaloo jox ma seen kàddu ma waxal leen maay seen ndaw maay seen ndaw waaye waxuma tooguma toogaayu kilifa kilifa tooguma toogaayu kilifa waxatuma xalifa bi ñuy wax xalifa bi yitteeluma xalifa yitteeluma taalibe mooma yitteel yal na ma ko ak ngërëm. ci boroom réew mi. ci boroom réew mi. yëg na affaire bi. yëg na affaire bi. jiitu na ci sax. jiitu na ci sax. def na ci loxoom. def na ci loxoom. bu waxtoom jotee daañ ko wax. bu waxtoom jotee incha allahu taala dana ci wax. incha allah. danañ ko yàlla dimbalee. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي إلهي توبة قبل المنون